إلى الكتاب والحديث انصرفا قلبي وقال بي بالمجد billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wassalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala wa ashaabihi wa tabiahum bi ihsaan ila mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di jot li xew-xew bu am solo xew-xew bu rëy rëy di xewee ci bis yu am solo di xewee ci dëkk bu am solo xew-xew bi mooy lan mooy wooteeb ku am ku ëmbal nit ñi yërmande muy woote bu Cheikh mu Mountakha lu mu wootee bisub xasida fan la ko wootee ci weeru muharram xëy na toll ci benn fan wala ñaari fan ba fan la ko wootee Touba li tax ma ne woote bu am solo la mooy fi mu ko wootee ci weer wii di muharram nga xam ne mooy njëlbeenu at mi bokk ci al ashurul xurum al ashurul xurum mooy weer yi nga xam ne loo ci jaamu yàlla sunu borom bi tabaraka wa taala fulal ko yàlla wax na ci alquran ne na inna iddata shuhuri inda allahi isna asara sahran fi kitabillah yawma xalaqa alsamawati wal arda minha arbaatun xurumun dalika addiinu alxayimu fala taslimu fihinna anfusakum wa xaatilu almushrikina kaafatan kama yuxaatiluunakum kaafa waalamu anna allaha maa almuttaqin weer wi kon dafa bokk ci weer yi nga xam ne lu ci way jëf suñu borom fulal la ko ba yàlla wax ne sax ne kon na ngeen ko warmaal te bañ cee tooñante moo tax sëriñ bi woote ci lim ci wootee muy dellu ci suñu borom tabaaraka wa taala ba ñu mën a am li yàlla li sëriñ wax ci téereem bii di xat fakka kabla xat basta fadla fa durru wala wa jaay lii tënk jénguñu mu tënkee ko suñu borom sotti ngëneelam waaye lor ji fi nekk wane ginnaaw njariñ daal di ñëw loolu la woote loolu nag mu woote ko ci barab bu tam bu am xorma muy barabu Tuubaa bi nga xam ne sëriñ bi waxoon na ne wàccaxal xarimaha xariman amina wa kun bi xefsihi kafilan damina na nga ko def muy barab boo xam ne bu am orma la barab bu am orma la mooy barab boo xam ne loo fa jaamu yàlla yi tamit suñ waroon ful ko kon woote na ci weer woo xam ne loo ci jaamu yàlla mu ful ko woo ci barab boo xam ne loo ci jaamu yàlla mu ful ko woo nag it ñu jàngaat loo xam ne de lu dul alquran ak hadis loolaa gën a suñu borom tabaraka wa taala muy xasida suñu borom xasida Seexul Xadiim yi nga xam a lu ci waay ñaan tawasul mu am ko kon bokk nañu xam ne wala si nastajaaboo li rabbihim wa aqaamu salaata wa amruhum suura baynahum wa mimma rasaqnaahum yunfiqoon képp koo xam ne wuy si nga yàlla te nga dikkee nga fàttaliku sa borom ndax taxawal julli gi wésul lu may fàttaliku yàlla ndax aximi salaata li zikri jàng xasida gi lépp lépp tawassul rek la ak barkeelu ak dellu gi suñu borom tabaraka wa la tey ku ci nekk la nga am nga def ko ci ay bernde ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi ak toroxlu sa borom tabaraka wa taala su boobaa kon li ñu bëgg lépp danañ ko am kon na ñëpp si muy njariñal kese wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ilal kitaabi wal hadiisi sarafa qalbi wa qalbi amiin